asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu xaq te di leen baal xaq tey ñaan sunu borom bi subhanahu wa taala mu boole nu jéggal nu delli di santaat sunu borom cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem ci xéewalem ci sunu jëmm ak ci sunu njaboot ak ci lu nu wër lépp te lu ci ne nu lott ci jooxe dëgg-dëgg cant ga ci war ci sunu diggante ak moom nu dolli it di tuubal ci sunuy rëcc-rëcc ndax xéewalam yooyu nga xam ni defal nanu ko dañ lott ci jooxe cant ga ca war dañu caa boole lanu war dëgg ci ne ci lim nu digal boole ca teet la nu tere it ñu lott ca lot nañ ci jëfë ndigal ya nam ko bëggé waye lot nañ it ci tee téré ya nam ko bëggé kon nak li nu war moy sax ci diko ko tuubal ci lu nu yëg ak ci lu ñu yëgut boole ca di toroxlu fu ñu tollu kon gannaaw ba nu sant yàlla sunu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ñaan yàlla dolli ko xéewal dolli ko ak mucc ak mbooleem ñi nga xam ni àndoon nañ ak moom ngir kawel baatu lislaam di baatu sunu borom joxoon ko seen jëmm joxoon ko seen alal ngir loolee mën a yegg fa ko sunu borom bi subhanahu wa taala bëgge ñooñ it yàlla na yàlla dolli ngërëmam ci ñoom ak tawféexam bokki dëkkandoo yi bokki julit yi noo ngi leen di baalo xaq ju ak ci lu nu yëgut di leen baal xaq ci lu ngeen yëg ak ci lu ngeen yëgut di ñaan sunu borom bi bo leenu jéggal nu war waxtu nuy xam josaanal aljumaha lan mooy li ko waral ndax li ëpp ci nun jullit ñi danañ di jaamu yàlla waaye li ci ëpp day mel ni luñ tokkiku ci sunuy cër la rek waaye ruuxu xam li ngay def lan mooy illa ji ak lan mooy li waral ba aljuma ni ñu ko diisele nga xamante ni soo jëlelee ñaari aljuma wala ñett am na nuñ lay bët beneen bu le lislaam di xoole bàyyi ko mu bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama loolee war naa tax ñu xam bu baax kon dara daraja aljumaa lan mooy li ko waral loolee def caa bokk yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy tàmbali di woote nit ñi xëy na taxaguñ woon ñu bare man nay laabiri nit ñi di leen dénk ñu nekkoon ñu néew ñu mujj te saaroo bari yaatu ci biir dëkk bi nga xamante ni xëy na mënut kenn ku ci nekk mu di la gis nam la bëgg a gisee su ko defee nag xekk moom aljumaa mooy ñuy daje ñëpp kenn ku ci nekk mu man laa jox ay xabaar yu bàyyikoo ci sunu borom jaar ci moom jëm ci mbindéef yi ci nan lañ war a nekkee seen diggante ak sunu borom lan mooy yees lu ñëwaat bàyyikoo fi yàlla jaar ci moom mu mën ko jot ci mbindéef yi seen digg ak seen borom ak seen digganteeg seenu nekkin nga xam ni su àjjuma ji ñu mën a téye loola di ko jëfe luñ cay jëfe luñ cay wattandiku ñu mën koo wattandiku ba aljuma ja dellu siwaat nga xam ni day mel ni élève boo xamante ni tey mi ngi ci biirub école ay cours yu bari su ko ca rawee day mel ni mu rattrapé ko dana xaw a jafe lool léeg-léeg mooy tax aljuma ñuy bëgg jullit ñi di ca bokk di teew su ko defee yi xew ci adduna bi ak lii xew ca dëkk ba ak ca réew ma ci diggante nit ñi ak ci seenu nekkin imam mana jot li lola man leena a man leena fatli wat man leena daggi watit ci sunu diine ndax kum don ci nun fatte daf koy yomb ma adama la suñ borom bind nono man nañoo fatlante ba xol yi toy lol ci yalla waye so genné jaxasoo wat ak nit ñi jaxasoo wat wa mbedd mi wa place yi li ñuy jankontel ci télévision yi ak ci réseaux sociaux yi muy internet bi mën naa dem ba yóbbuwaat sam xel ba la nga jàppoon lu ca baree baree bari day daal di rot bu fekkente ni yooyee da nga koy jëfandikoo ci geneen anam goo xamante ni mën na laa bañ a dolli ci sa xel bañ laa dolli ci sa bañ laa dolli it ci adduna joo xamante ni dana tax nga mën caa téye sa diine mën caa yóbbalu ëllëg yow man xiyaam te loolu yaatu lool mooy tax doomu aadama eh, aljumaa su jotee ñuy dénkante fàttalante diggante bi yu bari mën naa duggaat waaye buñ dajawaatee fàttalante waat day daal di am njariñ lool day daal di am solo lool ci ñun ñoo xam ne noo ngi ci weer yu màgg di séentu it weeru màgg weer yu màgg yi kazu rajab weeru rajab ci la bokk ak shahaban bi nga xamante ni noo ngi ci dugg yàggut jëm nag ci weeru màgg weeru tedd weeru sell di weeru yërmande di weeru njëgal di weeru ngërëmal sunu borom subhanahu wa nun jaam ñi nag ni ma ko waxee léegi bi ñu lottee ci deug dëgg teunku ci lanu yalla digal nañ ko wara samonté ak ndax jëfe ndigal nit man lay jëfe ndigal ni ko ko shariha santé muy nga dem japp ba sel budé japp daf la war budé ko sangu set war la mu sangu set japp ñew julli gi nga julli ko ni nga xamanteni non la ko shariha xolé ci kaw nga xamanteni ku yurbeutum di xol dana gis ni ki ke julli gi joxé nako nam waré sarexa toppatu ko ci dara waaye fekk na xool nag moom la suñ borom bi subhaanahu wa taala di xool kii ndax bi muy julli li tax ma digle julli muy waaqimi salaata li sikkir yi ndax kooku mi ngi ko doon fàttaliku wala déet ndax yaa ngi doon lu julli gi it wala déet loola su boobaa des koy xool des koy càmbar loolu nag diggante jaam bi la ak boromam jaam yi ci des li ñuy mën a xam rek mooy kii kat ni ko lislaam sante sarexa sante ko noonu defee na ko noona loolay tax nag ñuy fàttalante ci sunu diggante ba nun jaam ñi kenn ku ci nekk mën a yëg mën a xam li tax lii tax loole muy am njariñ te mën a wér te mën a am ak rafetal loola moo di ñu fàttalante ba xam ni kat kaw gi sariya moom kaw gi lay xool waaye sunu boroom nag subhaanahu wa taala mooy xool biir gi kon loolu ma wax ni kat sunu boroom lim nu digal lott nañ ci donte ñi ngi koy def ci kaw am na lu des ci biir te jullit bi war di ko bàyyi xel mooy sellal jëf ji ndax fi ne julli gi lu mu bari bari naafile yi lu mu bari bari jàng alxuraan tudd yàlla sàbbaal ko yooyu yëpp lu mu bari bari it xol bi sunu borom daf koy xool ba xam kii mu ngi doon teewlu bi muy julli wala déet ndax julli fi ne man ngay julli sa ñeenti rakka waaye su andut ak teewlu mook nga dem fee di ñoo ñooyam rek julli dañ ci bëgg nit ki fi mu kàbbaree mu dellu ci boromam subhaanahu wa xam ne mi ngi jooxe ndigalam loo xam ne lott na ci jooxe ko waaye mi ngi ci jéem di jooxe kem kattanam teewul sunu borom boobu ko bind ak ni mu ko melale ak ni mu ko kattanale xam ni moo ko fi indi moo ko fi bàyyi te moo ko fiy jëlee xam ni it ëllëgi dana daje ak moom. nga xamante ni teewlu yooyu yëpp jullit bi daf koy war su waxee allahu akbar baat boobu soo ko tuddee lu dul yàlla rek subhaanahu wa taala dafa war a woyof ci yow toy dootoo ca amati benn yëg-yëg ku dul yàlla it sunu borom subhaanahu wa taala it noonu. julli su taxawiwut noonu nga xamante ni soo kàbbaree allahu akbar jooji yàlla mooy aji màgg ji mooy aji kawe ji mooy aji sell ji moo yelloo jaamu te jaamu ko am njariñ moom moo yelloo topp moom lañu war a wóolu moom lañu war a yaakaar moom lañ war a topp moom lañ war a sopp ba ba julli gi di mat boo sëggee di rukoo bi lépp woyofee caw lu yàlla it bi nga ko waxee ci saw làmmiñ dafa war a dëggu ci sa xol mooy li ma wax léegi ndax xam nga kaw gi moom sareexa moom lay xool waaye biir gi nag mooy xaqiqa ndax yow bi nga kàbbaree bi ñu la séenee nga kàbbar ki la séen nga kàbbar moom nit la kem yow mun ta xam yow li ci sa biir xol waaye yow nag yaay fexe ba sa biir xol bi nga ne allahu akbar ci sa làmmiñ loolu dëggu ci sa xol ba lu dul yàlla mënatoo koo yëg mënatoo koo dund mënatoo koo xalam mënatoo koo xalaat lépp woyof ci yow bañ a doon koo xamante ni su ne allahu bar ci jàkka ji xel ma ma nga ca marché ba wala ma nga ca bureau ba wala ma nga ca grand place ba wala ma nga ca entreprise ba wala ma nga ca chantier wala ma nga ca ca yeneen yi nga xamante ni yëpp yëfi adduna la ndax yooyu yëpp nit ki su ne allahu akbar da ko war a wàcc gannaawam fii mu taxaw ci jàkka ji boroom jàkka ji te ñu koy askanale jàkka ji muy borom néeg bi kooku rek moo war a doon sa yitte moo war a nekk sa xalam moom moom rek moo war a nekk ci sam xel. loolu nag faaw jullit bi daf ciy tàggatu ci fànn yëpp loolu mooy li nga xamante ni mooy nuy dimbali gannaaw lott nañ ci jëf ji joxe ko nam war a dëgg-dëgg ah day jaadu lool nuy yeesal sunu tuub di ko jëmale ci moom waaye nag di ca tàggatu ndax nit bu xëy xëy. mel nenn ni nit ki du càggee ni da ngay jekki ba ni maa ngay dem ca jàkka ja wala maa ngay dem ca jumaa ja kat julli ji tàmbalee bëgg a xalam sunu borom déedéet waaye sunu borom nit ki fu mu toog fu ne rek mën na koy xalam ci jëmmam. ndax yëkkati sab loxo mu yëngu yëkkati sab tànk mu yëngu ngay xool ci say gët di déglu ci say nopp loolu lépp danga gis ni ki ko ki ko waral mooy sunu borom subhaanahu wa taala moo la ko baaxee moo la ko dimbalee moo la ko tew fii xale. su ko defee loolay day laaj nga di ko ca sant foo toll aadama nag li may faral di wax waxtu wu ne. li ëpp ci nun ku ci xëy ànd ak sëg wir jóg laal ndox génn mën a xëy mbaa fa nga bëgg a dem nga dem fa da ngay jàpp ni lii lu normal la lu jaadu la fekk ne déedéet am na waaju xëy boo xamante loolu lépp ngay def lott na ci moom te mënu ko te tële na ko yow nag mu baaxee la defal la ko kon sunu dajee ci béréb yu mel nii ñuy delloo si sunu xel ci weer wi nga xamante ni ñoo ngi ci jëm muy weeru koor di weeru màgg di weeru tedd di weeru am ngërëmam day laaj nag nu fexé ba loolee lanu cey jotalé ñu nekk ca ci diko jëf sunu kem katan. ba man ca am ngeerum la ca yonente bi sallallahu alayhi wa wax man ca am ngeermane ja ca sunu borom bi subhanahu wa taala dële man ca amit ngeerumam ak njëggalam kon weer wi mi ngi dik ñu war cey jangate lu bari ndax waris na cey jangé muñ ci weeru koor waris na cey jambalé jangate it dimbalante ci sunu biir ngir yalla ndax wéru koor ku ca dem da nga muñ ndax li la yàlla doon lim la doon tere li daganoon ci yow faw nga muñ bàyyi ko faw nga muñit mooy tax nga mën a lim la ci digal xiif lu metti la mar lu metti la waaye nga jàngate ci nag ñii xiif waxtu wu ne te am ay jafeñ-jafeñ ci seen wàllu dundin di ci jàngate it mar te di ca te amuñu luñu naan ni metté mar ak kif ni metté nga mën ko xamit ci yeneeni julit ñi la wër ak sa yeneeni i yi la wër ba tax taxawaay yawar ci seen digënté nga diko def ngir jëmmé suñu borom subhanahu wa taala ndax sayyiduna yusuf bimu démé demee ba sufie mànga seen suuf yépp kat da daan wor lu bari ñu nako yow lan moy la tax di wor mune ngir bëgg xam jafé jafé ñi ñina ci kif ba man leen jappalé man leen dimbali tey fi mu ne ñi nga xamante ni ñooy ne ci kaw bopp réew mi te ne ca béréb ya gën a kawe da leen di war ñuy dem ci àll bi dëgg-dëgg fa gën a sori ci àll bi di xool li ñuy jànkonteel ba fi mu ne nun ñii ne ci biir taax yi sax ñu ci bari fii ne courant lu yomb la fii ndax am na ci ñooñ bañ juddoo ba léegi ci biir courant lañ judd bañ juddoo ba léegi ci ndox lañ judd te fii ne ci àll bi am na foo xam ne boo demee ba tey amaguñu ndox am na foo xam ne ba tey amaguñu courant am na ci ñoo xamante ni ba tey sax ay toilettes ñuy suturloo sax amaguñ ko te loolu lépp ki ko am ñaare bu ci xalaatut sant ci sunu borom di xoolit ña ko ca tane mu wan leen caa dimbali loolu dana ca jafe kon weeru koor liñ ciy jàngate mooy nangu ndigalool sunu borom jàngate ci it ak dimbalante jàngate ci ak jàppalante ci biir jullit ñi ngir yàlla li ma wax léegi it bis comme bu dee aljumaa la nii ñuy def teew jaamu yàlla sàbbal yàlla dellu ci yàlla dana sabab yeneen bis yi ci des ricc rëcc yi ñu doon def suñu boroom jéggal nu ko ni mu ko waxee moom yonent bi sallallahu alayhi wa waaye weeru koor it rëcc yi bari na ci nun tolof tolof yi bari na ci nun buñ ca agsee nag jullit bu ne war naa def yitteem yëpp ba waru may weer wi mu sàmm ko na ci ndigal yi te tere yi di baril di jàng alxuraan di baril di sàbbal suñu borom baril di tudd yàlla baril di ko fàttaliku lool yi dana tax ni ma ko waxee léegi ci julli gi soo nee allahu akbar ba fi nga waxe asalaamu aleykum nga fexe ba lépp lu dul yàlla sunu borom rek woyof ci yow nga yëg ci yàlla dund ci yàlla xalam ci yàlla fi nga taxaw ba fi ngay sëlmale lépp di lu lay delloo ci yàlla suñu borom mi la bind andi fi bàyyi la fi di la fi jële di fàttaliku bi ngay xarxarle war a teq sa ruux war a teqalikoo ak sa jëmm mu wóor la sa kër gi moom jeexal nga ci sa njaboot gi noppi nga ci nga war a jëm ci kër goo xamante ni kër gu yees peq la te lay tax mu xéewu ci yow tëdd ba nooy yaatu leer xéewu nga mën a nelaw nelaw yi dal loolu jëf lay doon yoo xamante ni fii nga ko doon jëfe ci kaw suuf fi nga kàbbaree di julli bu sa xel dee dem ci loolu dana tax nga lu julli gi di ñaan suñ borom mu dëgëral la ci yoon wi nga xamante ni mooy tax ku àgg ca foofa doo fa gis lu la naqari doo ko fa dégg doo ko fa dund te musal la ci yoon wi nga xamante ni ku ca jaar nag su ëllëgee ah man nga dajé khat khat man nga dajé jafeñ-jafeñ bu lako sunu borom bi subhanahu wa taala kon wéru mag wo wi wéru tedd wo wi di dik nun ñëpp nu masé di ko xel bu baax di fas ni ma waxé légui julli wor nat asaka hajmaka sakat ñu ci bari danañ taamu di ko ci wéru wo wi ngir mëna dimbali seeni bokk julit yi nga xamanteni tan nañ leen ba koor gi du metti ci ñom lool loolu ñu ñu ngi koy fatali julit ko xamanteni ci sa alal nga di ko ci génne ndax weer wi day weer woo xamante nit ki lépp lu ciy jëf suñu borom da ko koy gën a fulal moo tax am na ñooñ dañ ko ciy taamu di ko ci def am na ñu koy def it xëy na ci yeneen i weer kon jullit bi li ko war waxtu ne mooy li muy jëfit nay fexe ba jëmm yàlla rek a tax ndax nit ay jëfam mën naa rafet ci kaw moo xam nit ko tabe la moo xam ku bari lu muy julli la moo xam ku bari lu muy jàng alxuraan la mo xam ku bari lu hajj makka la mo xam ku bari lu sabbal sun borom la nit ñi diko gis ci kurusum wala eh, ci téeréem te fekk ne kat mom yéeneem yépp du loola yeneen la ca laxas waaye defu ko ngir yàlla man ngaa gis koo xamante man naa fanaane zikir ba asamaan set waaye rëbb bañ xiitum aduna ak daraja ak alal ak yu ni mel loola dong moo ko tax di def loola waaye dañu bëgg nit ki suy tudd yàlla mu di ko def ngir jëmm yàlla xam ne yàlla moo yàlloo sàbbaal borom kat dafa wax ni képp koo xamante ni ma jaamuma ma soxla soxla wo nga ko wadis dima ñaan danaa la defal lu gën lima defal ñi may ñaan ndax sun borom ku ne ci nun xam na sa mbir te wu ko su fekkente ni yaa ngi ci li yàlla bëgg na la wóor ni yàlla du la fàtte mukk ndax yàlla du fàtte du gëmmentu du nelaw kon yaakaar naa ne ki yable ca tool ba ñan ca tool ba di xëy ak a gontu ak a wàcc ngir jëmmam yaakaar naa du leen fa bàyyi ne ca ne ca kër ga mooy tax lepp lu ñuy defit na yéene ja sel na pas-pas ba sel baña doon ko xamanteni bo gisee ñuy wax tarbiya muy tarbiyatun nafsiya wala tarbiyatur ruhiyya moy dañuy bëgg nit ki foot ko ba mu set wecc mu mucc ci li ñuy wax rasail al qalb ndax jëf dafa séddalikoo ci ñaar caay-caay yi dafa séddalikoo ci ñaar bu ñu wax rasail nit ki amna lol ci cëram la koy jëf waye amna ci lol ci xolam mo koy def dafa bok ci rasail al qalb kañaan ngistal gis sa bopp naw say jëf am ci yooy day yàq jëf am ci yooyu day yàq diine nit ki moom lay yàq ba nit ki diine buñ ko ko doon askanale dootu ko amati lu mel ni gis sa bopp ab jullit du gis boppam nit ki boppam dafa ko war a réer bu jàpp ni yaa gën kenn ndax xamoo ci looy mujj te adduna nun ñi ñëpp fi ne ñoo ngi dundali nii waaye kenn xamu ci looy mujj adduna kër la goo xamante ni kër la gu metti la kër la gu naqari la ñi ngi fi bëgg bànneex waaye bànneex boo fi man di amit am na lu koy kooj jàmm joo fi gisit am na lu koy kooj lii jàmm dëgg daal ci jullit mooy fexe ba la ko yàlla sant lam ca man mu nekk ca la ko yàlla tere mu teet ko loolu moom da nga mën a am jàmmi xol ndax lu dikki it da ngay xam ne loolee dogalam la coobareem la am nattu la su boobaa loole da nga ko mën a muñ muñin wu rafet te jëmmam rek a tax su ko defee adduna ku fi nekk it na ngay muñ na ngay wattandiku tooñ waaye na ngay jéggale ak tooñ waaye na ngay jéllale it ak tooñ ndax loolu moo lay tax a noppalu Sëriñ Tuubaa daana wax ne kuy tooñ du noppalu waaye kuy fayu kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu tooñ it doo noppalu kon ku ku fi dund na rafetal sa digganteeg sa borom na ngay rafetal it say digganteeg sa morom di fexe it balay koor gi dikk <coughs> ñu tàggat sunu bopp ci dundal suñuy xol xol nag sabab bokk na ci sabab yi rey xol bëgg àdduna waaw bëgg àdduna foo toll yaa ngi bëgg di kawe nit ñi ci mbir muñ man di nekk yaa nga cay bëgg doon ka ca gën a kawe di ëppalante di ndamonte lu nit am nga defe ni loo am defe ni yow dong yaa ko yàlloo lu nit am sax boo sañoon lam am ci xéewal suñ borom dindi ko doonte dikkut ci yow da ngay bañ bëgg a wéet ci aw tagg bëgg wéet ci daraja bëgg a wéet ci am-am doo bëgg kenn fekk sele ci loola te fekk yàlla muy séddale jant bi nun ñëpp kenn ku ci nekk su génnee mën na cee am ab cir boo téenee da nga seen jant bi te doo ko yàqal kenn xéewali suñ borom yi noonu la yaatoo jurul ñu di ko añaanante kenn ku ci nekk na yàlla defal nañ ko ko yéene ndax ñàkk yéene li suñ borom defal ab jaam du tax suñ borom teggi loolee yow ya cey sonne bo fo saa so xëyee rek ndax da ngay gis suñu borom di gën di doli tawfiq di gën di doli sutura su ko defé ngay gën di firfiri di gëna am coona te fekk nak bo nang won dogal suñu borom lolé lepp du ca am kon bokk na ci li dund li ray xol bëgg aduna bokk na ci li ray xol saggan ci tuddu yalla saggan ci sabbal suñu borom te jëmum rek tax tudd yàlla suñ koy wax nit ki su koy def na ko yàlla rek tax di def waaye bu mu ko def ngir benn xemmemteef adduna yàlla moo téye adduna téye àllaaxira ku ko dëgmal te muy dëgg ci yow moom mu téye adduna téye àllaaxira mën na laay jàpp ndalal lépp ci lu nga ne ko jàpp ndalal ma ko yow neel ci tool bi neel ci ndigal li te te tere yi ndax sëriñ bi daana tomb ñeenti tomb jël nit ki samp ko ca digg ba ci misaal tomb tomb ba ca digg ba tomb ba ca penk ba mu ni mu ni mooy li ko yàlla digal tomb ba ca sow mooy la ko yàlla tere saa soo jógee jëm ci li yàlla digle tomb bi ci sa ndeyjoor mooy li nga bëgg lépp te bëgg caa jot dafa lay wax ne la jërumaa gestoo ndigal yooyu nga jëm maa ngi moom ñoo bokk fuñ jëm jërumaa gestoo kon boo nee ci ndigal rek dana la ca fekk si li nga bëgg da ko am àdduna di nga ko am àllaaxira saa soo nee ci li yàlla tere it li nga ragal daf lay wax ne la mutumaa geestoo kat ndax maak loolu yi nga jëm noo bokk aw yoon kon nit ki li mu bëgg lépp na ko wute nekk ci li yàlla bëgg lépp lu mu ragal it mu wattandikoo ko wattandiku li yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala tere ba ko ñetteel it mooy booyal sunuy cir ci ak mooy yàlla di xool lu yàlla gërëmut wala ñu di ko diglu wala ñu di ko jëf ci sunuy cir loolee day waral xol bu dee te xol su deexee nit ki li muy def lépp buy julli doo ko yëg booy koor doo ko yëg booy sàbbaal suñu borom doo ko mën a yëg ndax xol mooy yëg suñu borom ba buñ koy waxtaane nga mën koo dégg man koo jàpp am loo yëg ci sa biir xol te suñu borom kat suñu cër yi bi mu nu ko joxee muy gët dañ ciy war di xool kii maanam yi su sanurihum ayatina fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu al haqq kon li nu war mooy luñ ci lépp lu luñ ciy xool rek war ko caa gis moom waaw suñ loxo yi tamit fi ñu koy jëmale yëpp yit mu nekk lu mu gërëm ak suñ cër yëpp la koy sababu dundal xol nag ngir tënk ak njëkkanteeg waxtu wi mooy dëdd àdduna dëdd àdduna suñ koy wax nit ki dana liggéey xéewal yi yàlla jox dana ko xéewloo waaye lépp na ci gis suñu borom subhaanahu wa taala sëb yëngu ci liggéey lu mu bari bari bari bari ak loo ci sori sori ak loo ci xóot xóotit lepp nay lo xamanteni ni lu lay delloo la nga man ca tey sa ragal yalla man ca taxaw say wayjur man ca jëfal l'islam man ca jëfal bindeef fi ne ci kaw suuf yëpp nga man leen ca jariñ su boba su tuddé nona loola kenn du ko tuddé ak bëgg aduna ndax da nga gis ko ko jàppee ku dëddu da fekk dafa amul rek da nga gis ko jappé ko xam dafa bëgg aduna fekk day sant sunu borom rek ndax li yalla daganal kenn du ko haramal ci ci ci mbindeef ba ca top moy farlu ci tuddu yalla bokko na ci li dundul xol farlu ci tuddu yalla bokko na ci li dundal xol di ànd ak nit ñu bax ñi nga xamanteni waxtu wone ne danañ lay fatali heure bo bëgge wax wër ta wax ba nga bëgg jëf lo wër ta jëf ba nga bëgg doxé no xamanteni wëro ko doxé la dimbali fatali la ci sa ak sa borom wa di la fatli ñak solo ak aduna doy dak aduna xébuk aduna te kenn ku ci nekk mi ngi dox di ko génn su ko yëgee ak soo ko yëgut ndax fu ñu xëyee bëccëg gu nu yenn wàññi ko ne sunuy bëccëg guddi gun fanaan wàññi ko ne sunuy gudd bis bu jàll wàññi na ne ci sunuy bis te lépp lu ci wàññeeku dara dootu ci dikkati te kenn xamut fa sa ruu di teqalikoo ak sa jëmm te dee du dikk mukk ci lur ak mbetteel mooy tax nit ki la ko war mooy waxtu wu ne lépp lu man ci lu baax bu mu ko yeexe ëllëg lépp lu mën a wattandi ko ci safaan na ko daal di wattandi ko fu rëcc rëcc amee it ci digganteem ak borom na daal di tuub dellu ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala te kenn ci nu nit bañ a gis boppam kenn ci nu doon ci nit nay rafetal mbokk ci mbokkum jullitam njortam ndax nit kat léeg-léeg mën nga koo gis mu njëlbeenoo luy nurub safaan te sunu borom dogal na muy mujje tawfiq ak rafetal ak jàpp dal boo xam ci diine la wala ci adduna la léeg nga gis koo xamante ni dana njëkke ak ñàkk te fekk mi ngi jëm ci ak am nga gis koo xam dafa njëkke ak am te fekk mi ngi jëm ci ak ñàkk léeg-léeg nga gis ku njëkke ak wér te fekk mu ngi jëm ci wéradi léeg-léeg nga gis ku wéradi fekk mi ngi jëm ci ak wér te loolu lépp it jullit bi daf koy war di bàyyi xel fu mu toll mooy di rafal ci sunu diggante di yërëmante di dimbalante di suturaalante te yéenante jàmm ngir yàlla léegi boo xoolee xol yi mi ngi fees dell ak kañaan ak yéenante ab safaan ak yàqante ak bëgg àdduna ju fees jàll ci suñuy xol bay waral ñuy ŋàññante di yàqante ay der ba daanaka nit ñi ñu ci ëpp in humo illa kal waaye sax bal humul adal te loolu lépp julli bi war a defarwaat ci wàllu jikko waat ci wàllu pas-pas defarwaat ci wàllu jëf ba jikkoom jëfoom meloom lépp mu dëppale koog li suñ borom bi subhaanahu wa gërëm ndax bari na kat yu ñuy xeex ci réew mi muy doon lu ñaaw doon lu safaanu waaye bu mu tax ñu fàtte yeneen yi nga xamante ni yaatu na lool ci société bi ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñu war di ko bàyyi xel ci ay jikko ci doxalin ci waxalin ci waxin tem yaatu lool ci jamono bi ñu góorgóorluwaat ci yar njaboot gi ci diine waaw te lépp luy waral fitna it nañ koy daw ci sunu wax di ko daw ci sunu jëf di ko daw ci sunu melo lii xew ci jamono yi digënté Ukraine ak Russie fi ne aw aw ay bu mu la sori ba nga defee ni du ak ci yow musiba bu mu la sori ba nga defee ni bu mu ci yow julit bu ne war na cey ñaan ku ca am pexe war nga ko cey def ci sa wax ak ci sa jëf ak ci sa melo ndax fi ne guerre mondiale 14 18 lu ñak fay da moko talon boko xolé ndax ben waxamaane bo xamanteni bosni bos réew ñu wax bos ni fa la doon d'origine serbe moo faatoon prince héritier bu Autriche réew mi ñuy wax Namsa ci arab moom la ñuy wax Autriche bi mu ko faatee gannaaw moom d'origine am serbe la mu faat prince héritier bu autrice autrice déclaré guerre serbe song ko Russie yi mii tey booba allié la li ñuy wax ci arab ci ci ci serbe moom itamit mu songu Autriche Allemagne songu Russie boole ca France Angleterre moom itamit déclaré guerre euh, Allemagne Italie far ak Allemagne ak Autriche ali ci des yëpp kenn ku ci nekk ak fam far te ay la woo xam ne tàmbali na nañ ñaan yàlla fay ko ci jàmm ak salaam waaye conséquences yi ak jeexe di day daal di feeñ ci adduna bépp léegi si tey ci kanam fii la fekk léegi ci tay nga gis pir yu bare bare yu nit ñi daan jëfëndiko tambalé du yok té bu njamee ci loola sax muy jamm ndax fi ne kenn ku ci nekk réew yu bo dé xol muy asi muy Europe muy Amérique muy réew yu golf bi li ñi am ci yu sophistique fu ñu ñi ngi defar ingénieur yi di xalaat loolu ci kan lañ ko bëgg a sotti ndax kenn ku ci nekk yaa yu téye sa arme tok di xaar ku la tuddu mbaa ko la laal ba ko la song ba nga jamarlo ak ñom yoyé kon réew mi aduna lépp lu fi indi jamm warees na koy def ndax fitna kat du caageen day yem ca ña ko taal rek kon yàlla na yàlla fay ay woowee te de dolli nu jàmm dolli nu tawféex dolli nu sutura maa ngi eh, jeexale samay kàddu ci li ma tàmbalee woon di tuubal bindeef yépp ci lu ma yëg ak ci lu ma yëgut sama digganteeg ñoom di ñaan suñu borom mi nga xamante ni dara tëw ko mu bokk nu jéggal njéggal gu sax suñuy rëcc rëcc te nangul nu suñuy yiw suñu borom bokk nu dëgëral nu ci siraatal mustaqim musal nu ci ndog yi ak pakk yi ak musiba yi ak balaa yi te dox suñu diggante ak seytaane kenn ku ci nekk lam bëgg ci boppam bëgg ko ci ak njabootam yàlla na ko ci defal lu kawe njortam kenn ku ci nekk lam ragal ci boppam ragal ko ci ak njabootam yàlla na suñu borom dox diggam ak loolee te suñu borom bokku nu defal nu mujj gu rafet nun ñëpp defal nu jàmmi adduna defal nu jàmmi alaxira te musal nu ci lori adduna ak lori alaxira te defal may nu nu jege ko jege ko andut ak lor te defal nu ngërëmam it lu andut ak meram واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته